alhamdulilahi rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika muhammad wa alaa aalihi yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaaraka wa taala ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem mbokki jullit yi ñu xam ne li ñu tudde lu baax ak lu bon ci sunu dund gii nu nekk ñaari mbir la yoo xam ne yu juuyoo lañ yu soree lañ lenn lu ci nekk dafa am yoon wu jëm ca moom yoon wu jëm ci li baax ak yoon wu jëm ca la bon doomu aadama yi nag ñu ci bare bari ak réer dal na leen ci xam lan mooy lu bon dëgg-dëgg ak lu bon fan la jóge ak lu bon ban rapport la am ak doomu aadama ji ak ban rapport la am ak borom bi tabaraka wa taala loolu nag li ko waral mooy léeg-léeg ci jàngkat yi ak ñàkk a dégg buñ jàngee sunu borom tabaraka wa taala moo wax ne allahu xaaliqu kulli shay borom bi tabaraka wa taala moo bind lépp kon ñoom dañu wax ne lu bon kon ci sunu borom tabaraka wa taala la jóge comme ni lu baax jógee ci moom waaye li jaadu nu xam ko mooy lii nuy tudde lu bon nun mu jóge ci mbindeef ñi xam ne lii lu bon la lu mel ne rey bakkan lu mel ne tiitloo bakkan ak xañ ko sécurité lu mel ne lor bakkan ci jëf wala ci wax lu mel ne fexe ba musiba dal bakkan lor yooyu yépp bu ko doomu aadama defee dëgg la lor la te lu bon la waaye nag yooyu lu ci sunu borom tabaraka wa taala def day soppiku duutut nekkati lu bon waaye lu baax lay tudd bu boobaa lu ko waral moo di sunu borom tabaraka wa taala mooy ki xam lépp mooy ki ko peeg te lu muy def lu ne am na lum ci jublu loo xam ne lu baax la donte lay feeñ ci kaw mën naa doon lu metti mën naa doon lu dëgër mën naa doon lu mën a tiitloo nit sax waaye fekk na borom bi tabaraka wa taala lëm nëbb ca gannaaw bu dikkee rek ñi xam ne moo taxoon mu def lii loolu moo tax aw ay li ñuy tuddeew ay walla lu bon suñ ko tegee place ba mu war a nekk duutu nekk lu bon waaye lu baax lay doon ki rey bakkan ñu rey ko rey goo gi ñu ko rey kenn ku ne xam ne ne rey bakkan la waaye rey gu jëkk ga lu bon la waaye gu mujj gi lu baax la te reykat rey rek la ki sàcc alali jàmbur sharia ne nañ dagg loxoom dagg loxoom nit lu metti la ku yeex sax da wax ne lu bon la su fekkee tooñu waaye ne ginnaaw daa def lu ko jar dagg kon loolu ñu tudde woon aw ay wala ñu tudde ko lu bon day soppi ku nekk lu baax ndax la muy fekk ëllëg moo ko waral benn loxo bañ dagg dana fekk téeméeri loxo wala junniy loxo yoo xam ne diisu leen dagg bu ëllëgee ndax dootuñu ñemee sàcc te it wéyal ndigalul sunu borom tabaraka wa taala nekk noonu attey sharia yépp noonu la demee bu ci tàng ci kaw wala mu metti wala nga mën koo tuddee sax lu baaxut boo xoolee rek gis ne nekkete lu baax la moo tax ci alquranul karim ak ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay jàng aay yu baree bari gis fuñ tuddee yiw ak ay muy lu baax ak lu bon dangay ngay gis ne ci doomu aadama yi lañ koy wéer ne ñoom seeni jëf la waaye sun borom tabaraka wa taala du def mukk aw ay wala du def mukk lu baaxut borom bi tabaraka wa taala ngi koy wax nee na dana leen nattu ci yiw ak ci ay dana leen nattu ci yiw ak ci ay nattu googu mooy seetlu leen ba xam su ay tegoo ci sa kaw da nga muñam ndéet su yiw tegee ci sa kaw da jub wala dangay ngay bew natt boobu sunu borom tabaraka wa def ci nattu jaamam yi kon ay wi tegu ci kaw jaam bi bul ne borom bi tabaraka wa taala teg na ko ay parce que da ko bëgg a teg rek aw ay waaye am na lu mu ko cay defal ab natt la boo xam ne ma ngi cay xeet ay bàkkaaram yu tege woon ci moom ma ngi koy def loo xam ne dafa bëgg mu muñ te muñ marta bu mag a mag la boo xam ne ku ne da caa bëgg àgg te kenn mënu caa àgg nag te amoo ab nattu ndax diisul sa xéwal yépp maase amoo jafe-jafe amoo benn looy jàmbat nga nekkoon maa ngi fii di muñ déedéet day am lu tege ci sa kaw ci sa bakkan wala ci sa alal wala ci sa njaboot wala ci sa yaram doon lu diis nga muñ ko te rafetal muñ nga kon natt booba la sunu borom tabaraka wa taala teg du ay ndax lu lay yóbbe muñ la te soo muñee lu mu lay jural mooy bokk ci ñuy jege seen borom tabaraka wa taala ñi nga xam ne yàlla dafa ànd ak ñoom inna allaha maa sabirin kon noonu la demee borom bi tabaraka wa taala mi ngi waxaat ne su fekkee ne xéewal naa nit ki lu gën a bari xéewal yi sotti ko ci moom nee na day daal tàmbali di tiitaru waaye nee na su aw ay ñëwee ci kawam nag day daal tàmbali naagu ñaari mbir boo xoolee ni mu waxee anam naa daf ne def na xéewal ci moom feneen fi ci des mu ne massahu charru waxul ne ma def aw ay ci moom ma su ma ko tegee aw ay waaye daf ne su ay ñëwee ci kawam loolu mooy wane ne ay du tuuru ci kaw nit te fekk sunu borom tabaraka wa taala da ko koo tuur rek ngir teg ko aw ay su doonee ayu kese woo xam ne rek dara nekku ca ci njariñ xamal ne woowa ay ca doomu aadama ja jóge waaye jógewul ci boromam tabaraka wa taala moo tax ba jinne yi di wax ca suuratul jinn eh, biñ gisee xew-xew yu mag yeeg yonent ñu yónnee yëngatu bu bees bi am ci jamono dañ ne wa anna la nadri acharrun urida bi man fi l ardi nun xamunu ndax aw yiw lees namm ci nit ñi aw aw ay lees namm ci nit ñi wala aw yiw la yàlla namm ci ñoom wala aw yiw la yàlla namm ci ñoom loolu fekk la ci wax yi lool boo xam ne waris na ko dégg ndax aw yiw lañ namm ci nit ñi waxul ne yàllaa ko namm ci ñoom ànd ak ne borom bi tabaraka wa taala lu mu ko lu mu nëmmul du am waaye teggiini waxiin la ak ne borom bi tabaraka wa taala du def ayu kese moo tax waxiin wa mooy asharrun urida bi man fil ard ndax dee sa namm aw ay ci ñi nekk ci suuf am araada bihim rabbuhum rachada wala seen borom da leen bëgg a indil njub aw kay seen borom da leen a indil njub ci yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi nee na ba leen musiba ma dalee wàcc ci seen kaw ca Uhud noon ya tàmbali gañe leen lor leen lor ju metti ngeen di laajte fa qultum anna haada ngeen waaw lii nu mënee am ab yonent génn ànd ak i saxaabaam jaamaaroog ay yéefar yéefar yi di gañe jullit ya mu ne qul huwa min indi anfusikum loolu yéen a ko fàggu yéen a ko defal seen bopp ndax la leen yonent ba digaloon yéen a ko fa bàyyi kon ñu xam ne borom bi tabaraka wa taala ci yiw moom dong lay def li muy teg nit ki tam metti it na xam ne yiw yiw la làmboo loolu su ko xamee rek dana noppalu ci ci ak dundam ci saxiixu muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci ñaan gu am solo ba ne bu masaan jóg di julli lay jàng ñaan googu mu doon gu gudd goo wax ne mu ngi ci saxiixu muslim la ca mujj mooy labbayka wa saadayka wal xayru kulluhu fi yadayk yiw wépp lépp lu yiw mi ngi ci say loxo mu ngi ci sa ñaari loxo sunu borom tabaraka wa taala wa charru laysa ilayk aw ay nag du jëm ci yow maanaam ay tukkewul ci sunu borom tabaraka wa taala loolu nag buñ ko seetloo dinañ gis ne am na lool déggiin woowu ak xam-xam boobu lu muy jëriñ ab jullit am na lu mu koy dolli ci ngëm yàlla am na ab yar bu mu koy defal boo xam ne day tax mu doon ku mën a jànkoonteeg dund gi la ak metti metti ak jafe-jafe yi bu jullit bi amee lu ko wér ci lii borom bi tabaraka wa taala wax ne maa yuridu llahu li yajala aleykum min xaraj nee na seen borom bëggu teg lu tiis bëggu leen a teg lu metti walakin yuridu li yutahirakum walakin yuridu li yutahirakum nee na daf leen a bëgg a laabal wa li yutimma ni'matahu alaykum mottali ay xéewalam ci seen kaw laallakum tashkuruun ndax ngeen sant ko kon nattu bi bi la ko borom bi tabaraka wa taala teg yiw la la bëggal mu ngi mel ne tëggu wurus mi tëggu or bi nga xam ne daa dem ca taal ba jël or bi di ko dugal ci biir taal bi kooku jubluwu koo yàq bu ko lakkee ba mu xonq ba defar ba noppi ca rek boo ko gisee xam ni kii da defar yàqut kon nattu yi ak métier yi ak jafe dund gi ak jafe-jafe jamono ji jullit ba ciy dund day ànd ak daluk xel day ànd ak teeyug bakkan day yëg ne boroomam da koy defar su ci noppee rek mbiram lépp baax kon mbirum jullit bi gëm yàlla nattu yi day wëlbatiku fa moom soppiku ay xéewal naqar ya day wëlbatiku soppiku ay mbég la doonoon luy nuru mbugalum àdduna day wëlbatiku soppiku xéewalug àdduna su ko defee xelam dal mu mucc ci njàqare mucc ci bopp bu ubbu lu ci boroomam saxoog di ko jaamu ak di ko ñaan ak wéer ay mbiram yépp ci sunu borom tabaraka wa taala boo xoolee kéemaan yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala wane na ko ci histoire ci dund gi bari na lool ci loolu nattu ñëw yiw tegu ca xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génne nañ ko dëkkam bi nga xam ne fa la dëkkoon fa la juddoo moom la miin moom la xam la mu am ci alal la kus néew fa la nekk ak njabootam fa lañ nekk ay bokkam fa lañ nekk suuf soosa la xam ñu génne ko Makka mu dem Madina mu metti lool doon lu tiis waaye lu ca mujj diir bu gàtt yàlla taxawal ci loxoom état boo xam ne soppi na histoire doomu aadama xoolal loolu boo dikkee ba weesu diggante boobu nga xool ku mel ne imaam Ahmad ibn xanbal tëj nañ ko diir bu yàgg dóor ko sax ay dóor yu metti diir bu yàgg ci biirub kaso mu génne ca nekk lan imaamu ahli sunna fu ñu nee imaamu ahli sunna rek ñu xam ne kon imaam Ahmad ibn Hanbal moom la ñuy wax loolu lu ko waral nattu bam jaar moo ko waral ibnu taymiya rahimahullah tëj nañ ko ba mu faatoo ci kaso waaye li mu bindee ci ay téere yoo xam ne ca biir kaso ba la ko bindee doomu aadama yi di ko jàng tey ci kaw suuf kenn xamul nu mu nga xool woowa yiw na ko jullit booba soppee woowa ay na ko jullit ba soppee mu doon aw yiw jeneen imaam ju mag ju ñuy wax sarxasi dañ ko tàbbal cib teen mu am fa ay fan yàgg fa lool mujj ab xissa bu gudd gudd la ci histoire am ak ci dundam ala kulli xaal génne na ca teen ba waaye mënta àgg fa doomu aadama yi nekk mu dëkk ca àll ba di fàggu la muy dundee di ko lekk waaye diggante boobu bind na fa téereem bi ñu tudde almabsuut muy ñaar fukki tom yoo xam ne doomu aadama yaa ngi koy jëriñoo ci fiq ba ci sut jamonoy tey jii kon nattu ba soppiku na doon ak xéewal ibnul asir nga xam ne handicap la woon dafa toogoon mënul woon di dox toogaayam boobu lu mu ko jariñ mooy bind na téere bu ñuy wax jaamewul usul nga xam ne moo boole mboolem téere yi sunna yi nga xam ne ñoo ëpp solo muy saxiixul buxaari ak muslim ak abu dawud ak tirmisi ak nasaay ak ibnu maaja mu boole leen ci benn téere boole koog liggéey ca nag liggéey boo xam ne bu néew la bu néew a gis ci keneen la boole ko taalif téere bi ñu tudde an nihaaya fi garibil xadis nga xam ne kuy jàng xadis ba àgg ci benn baat boo xam ne xamoo lu muy firi ci téere boobu ngay dellu ndax xam lañ ci jublu kon jëmm ji ko doon bind ci benn béréb la toogoon mënul woon di déplacé di dem ak ñëw lu dul nit a ñëw déplacé ko mu door a déplacé wu ibnul jawzi ñi dàq ko génne ko baxdaad imaam bu mag mu dem baxdaad yàlla dogal mu fekk fa ci ay jàngkati alxuraan yoo xam ne Euh, dañ ko dàq mu jóge Baxdaad bi mu génnee dem Kuufa demaat yeneen i dëkk yàlla dogal mu dajeeg jàngkati alxuraan yoo xam ne bàyyiwu leen woon fa mu jóge ànd ak li mu doon mokkal alxuraan mu faf mokkal si ñooña alxuraan ci juróom-ñaari jàngeen yi am yépp muy alqiraatu saba génne gañ ko génne nga xool kon yiw wi mu ko jural kon mbiru sunu borom tabaraka wa taala noonu la tudd tëdde léppam yiw la am na benn buur boo xam ne dafa amoon benn wasiiram ministre lañ ko war a mën a tudde wala ab dag mooy que ca buur ba yàlla dogal mu doon nag ku ragal yàlla moom dag boobee doon it ku lu ci boroomam lu xew rek mu ne jàmm la luñ ko wax lu mu réeree mu ne jàmm rek la de bu soobee yàlla am benn bis buur bi yor paaka am lu mu doon defar faf baaraamam ne kat tit dëgg deret jay sottiku ministre bi wala dagg bi ñëw yam ci deret yi di sottiku lii lan la mu ne ko sama baaraam di daa dagg mu ne ko jàmm rekk la buur bi mer ne ko deret yi sottiku di walangaan ngay daan jàmm la daal di woo soldaar yi ne nañ jàpp waa ji tëj ko ñu jàpp dagambo bi daal di koy tëj dugal ko kaso buur bi baaxoo na ajuma ju bu ñu jullee ba noppi day génn ca àll ba xam naa di rëbb ka def li ñu tudde promenade doxantu daal muy doxantu faf dugg ci benn gott bu mag mooy àll bu bari ay garab di fa dox ba mu yàgg mu toog di noppalu nes tuuti rekk mu am mbett moo xam ne bàyyiwu ko woon ay xel mbett moomu mooy am na ay nit ñu nekk ci biir àll boobu yor fa seenu xërëm woo xam ne at mu ne dañuy ñëw di ko jaamu si te suñ koy jaamu at bu nekk dañ koy reyal bakkan at mooma nag amuñu woon bakkan ñuy dox ca biir gott ba di wër fu ñuy jële luñ ko reyal far fekk fa buur ba nag ñu jàpp ko biñ ko jàppee indi ko ne nañ ko rey ñu xool gis ne baaraam bi dafa dagg ñu ne ah nun kat suñ xërëm yi mësunu leen a reyal lu dul nit ku mucc kii aw yaramam muccut ndax baaraamam daa dagg wocc leen ko ñu bàyyi ko mu dem bi mu génnee mu xalaat la ko dagam boobee waxoon ne ko xayrun insha allah ne ko lii aw yiw rek la mu door a gis ne kon baaraamam bu dagg bi nekkete aw yiw la bi mu dikkee mu ne nañ gaaw génneel ma diw ñi génne ko ca kaso ba indi ko mu toog mu nettali ko li xew ñu ànd sant yàlla ba noppi mu ne ko waaw bi ma nee nañ la dugal ci kaso bi loolu itam yow da nga ne aw yiw la loolu nu mu ko doone xam naa ne sama baaraam bi ñu daggoon moom yiw la waaye sa dugg kaso yow loolu nu mu mën a doone yiw mu ne ko yow day wóor na la ne mosoo teew fenn lu dul danoo ànd teew fa su ma duggul woon ci kaso bi bis boobu yi nga doon génn noo doon ànd dem te suñ la xoolee gis sa baaraam dagg ñi xool gis dara sikkut ci man su boobaa man la ñuy jox xërëb yooyee man la ñuy rey kon dugg gi ma duggoon kaso bi man itam yiw la ci man kon mbokki jullit yi jullit bi na bàyyi boppam ak boroomam fu mu ko jëmee rek foofa la moo tax sunu borom tabaraka wa taala bu dee wax ne wa asa an takrahu wa huwa xayrun lakum nee na bari na loo xam ne yéen a ngi koy bañ fekk yiw kese la wa asa an wa huwa sharrun lakum bari aana lu ngeen di bëgg itam te fekk lu bon ci yéen la kon jaam bi na lu ci yàlla na koy jaamu na koy ñaan wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla moo xam waaye yéen xamu leen kon nekkal ci lim la sant rek sa na féex lu tege ci yow rek ak lu mën a doon yiw képp la mën a doon yiw rek la mën a jur kon mbokki jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk suñ bopp ñu baril lu ñuy jaamu yàlla baril lu ñuy ñaan rawatina ci weer wu tedd wi nga xam ne moo teru di am at itam mu yees ci dundu jullit yi muy atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa di weeru muharram itam di weer weeru baax ku génnewul woon asakaam ca weeru koor war na génne ci weer wii mooy occasion ku yàlla baaxee dara ci asaka na ko génne ci wii weer di fàttali it woor fukkeelu fan ba ku ko mën a booleeg juróom-ñeenteelu fan ba itam lu baax la kon juróom-ñeenteelu fan ba ak fukkeel ba lu baax la mooy àllarba ja ak alxames ji di ñëw allahuma aiz alislaama walmuslimin wa adil alshirka walmushrikin wansur diinaka wa kitaabaka wa sunnata nabiyika sal allahu alayhi wa alihi wa sallam wa sal allahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain